asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata juróomi fan ci jumaada saani yi muy weeru maamu koor di juróom benneelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett juróomi fan dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci talaata ji rafetul ñaanu bis bi yow yàlla muy walbati xol yi yàlla na nga wëlbati sunuy xol jëmee ko sa topp. allahuma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik allahuma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik xadisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ragal leen yàlla te ngeen maandu ci seen diggante njaboot gi xadis bi buxaari nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum rawaahu buxaari